أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ñuy dugg tey suuratu Huud ginnaaw ba ñu pare ci Yunus waaye xam ngeen ne saar bu ñuy dugg balaa ñuy jël saar bi dañuy def muqaddima bi te mooy introduction saar bi lan la ëmb saar bi lan la wundu saar bi lan la ñëw lan moo tax mu wàcc saar bi lan lay jàngale saar bi di suratu Huud xam ngeen turu Huud tur la ci turu tur la ci turu yonent yi alayhimu salaam suñu jàngee alquran ñaar fukki yonent ak juróom yi yàlla di wax turu yonent bi def cee bokk muy Huud yàlla nga ko yónni woon ci yan nit ci waa Aad wa ila Aad axaahum Huuda ah ñoom ñooy qawmu Aad saar bi mu ngi wàcc Makka lu dul yenn aaye aaye 12 17 ak 114 yooyu ñu ngi wàcc Médine saar bi aaye yi 123 aaye la 123 aaye mu ngi wàcc ginnaaw suratu Yunus rapidement bi Yunus jeexee rek saaru Huud dafa wàcc Makka la comme ni ko Xasan waxee ak Ikrama ak Ata ak Jaabir ak Ibnu Abbas ak qataada mu ne lu dul benn aaya boo xam ne mooy aaya fukkeel ak ñeent aaya boobu mooy waxu yàlla tabaraka wa taala wa aqimi salata tarafay nahar boobu la ñu wax ne madina la wàcc jële nañ ci imaamu tirmisi mu jële ci ibnu abbas radiallahu anhu qaala qaala abu bakr radiallahu anhu yaa rasulallah qad shibta qaala sayyabatni huudun wal waaqia wal mursalaat wa amma yatasaaluun wa iza samsu kuwirat Aboubacarin Saddiq xam ngeen ko dafa jékki-jékki rek mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw yow yaa rasulallah da ngaa bi jaaw ndeke fekk yonent bi dañoo jékki-jékki rek fii ci sikkim bi. benn guru bu sikkim bu weex tal daat fii génn xaraas ci biir sikkim bu ñuul bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sikkim bi dafa tàmbali woon sëq fii ci kawar gi saxuwaayu kawar yi ci kaw nopp bi waaye daa di fatt nag lëndëm gudd daa di wàcc daa di ñuul kukku nag ron sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu jékki-jékki rek ñu gis fii benn guru bu sikkim daal fii génn weex tal rafet mu mel ne benn benn trait buñ fit buñ fit dessiné ndeysaan ci biir lu noir li sallallahu alayhi wa sallam rek Aboubacar ñëw fekk ko yonent bi toog Aboubacar commencé xëcc sikkim bi naan ko nii yaa rasulallah da ngaa bi jaaw yaa rasulallah da ngaa bi jaaw mu ne ko waaw Aboubacar damaa bi jaaw waaye xam nga lu ma bi jaawloo mu ne ko waaw mu ne ko suuratu Huud saar bii moom ma bi jaawloo mooy bii ñuy jàng ndax boobu kese la ak saar bu ñu naan iza waqaatil waaqia ak saar bu ñuy wax wal mursalaati urfa ak saar bu ñuy wax amma yatasaaluun ak saar bu ñuy wax iza samsu kuwirat saar yi boo leen boolee ñoo tiital yonent bi ba yonent bi bi jaaw ci beneen hadis bi bu Sufyaan ak Waki qaalu ya rasulallah naraaka qad shibta sahaaba yi boobu ñoo dajaloo ne ko ya rasulallah e waay ñun gis nañ ne bi jaaw nga waay ndeysaan qaala sayyabatni huudun wa axawaatuha ne leen waaw waaw bi jaaw naa de waaw lu waral nga bi jaaw mu ne saaru huud ak ay mbokkam yan ñooy mbokkam mooy yi ma waxoon sànq mooy yan isa waqaatil waaqia ak war mu salaati urfa ak amma yatasaaluun ak isa samsu kuwirat saar yi benn saar seddu ci yépp a tàng ndax yowmal xiyaam lay wax waaye ci biir suratu huud dafa am benn aaya boo xam ne moo tiital yonent bi ba mu bijjaaw moo tiital yonent bi ba yonent bi bijjaaw mbokk yi yonent bi lu ko tiital ba mu bijjaaw kon ñun lan lañ war a def ah lu tiital yonent bi laa wax ba yonent bi bijjaaw kon ñun lan moon war a dal benn aaya ca sur saar bi la yàlla joxoñ yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko fastaqim kama umirta wa man taaba maaka wala tatgaw innahu bima taamaluuna basir yonent bi daal di bi jaaw aaya boobu lu muy tekki yàlla moo ne yonent bi jubal xocc fastaqim jubal kama umirta comme niñ la ko sante ah point d'interrogation bu ndaw jubal comme ni nga ko bëggee ah kon yow ni nga ko bëggee yow noonu nga koy defee waaye jubal comme niñ la ko sante kon yow amatoo droit defee ko yow ni la neex kama umirta ndax yow kese la mu ne ko déedéet waman taaba maaka ñu tuub tamit ñëw ci lislaam nañu ànd ak yow comme ni yow ni nga war a def loolu la ñu war a def bu yàlla yemoon foofu rek dina doy waaye yàlla ne ko innahu bima taamaluuna basir li ngeen di def man yàlla maa ngi koy gis maa ngi ci teg sama gis allahu akbar tey ñu ñu nekk ci biir jumaa ji bu Macky Sall la jëloon ci kenn ñun boole la ak ñaari gendarme rek mu ne garde leen ko 24 heures ñi ñooy garde suba ñi ñooy garde ngoon ñoo lay xool di bind sa lépp say déplacement say geste say wax sa lépp fenn dong lañ lay bàyyee ba duggee ci trois la ñu dugg sax nag taxaw ci bunt bi di xaar ba nga génn boo commen boo génnee ñu commencé encore mu ne la bu jeexee dama lay nommer dara quoi dañ bu gars yi ñoo indil ma rapport dafa am lu ma la bëgg a nommer rapport boobu dinañ la jël wala duñ la jël damay laajte dinañ la jël wala duñ la jël waaw bëgg ngeen tontu dinañ la jël lu tax parce que da ngay normal la ilaha illallah ah doomu aadama moo jël ay doomu aadama ay mbindeef comme yow chargé leen nañ la saytu nañ la xool nga normal allahu subhanahu wa taala jalla jalaaluhu borom asamaan borom jaam ñi ne la yow ma waxuma sax dama laa booleeg ay malaaka waaye yow lépp loo def maa ngi koy gis normalo te biñ la booleeg ñaari gendarme yi yéen yéene neen normal ngeen wala ah normal nañu yàlla ci boppam di la gis nga ne nga bañ a normal waaye xam ngeen li tax yonent bi bi jaaw parce que moom ak nun du benn moom dafa xam ki koy gis kan la moo tax mu tiit xam nga bi jaaw lu koy waral bi jaaw li tax bi nit di lekk rek daal di bi jaaw weex tàll wala mu am fu weex wala am yu weex ak yu ñuul jaxasoo ci yaramam xam nga garab boo koy roose après nga bàyyi roose bi nu muy def su laxee après day wow ci biir yaramu doomu aadama dafa am ci paxu kawar yi fu muy génnee ndox moo xam ne day génn di roose kawar gi day ñuul pax yooyu bis bu fattee rek kawar gi ex ndox mi exeetul ci kawar gi kawar googu day dee day weex doomu aadama nag bu tiitee li ëpp mooy ndox yooyu pax yooyu day fatt pax yooyu bu fattee rapidement kawar ga fa doon nekk day dee tiitaange daf koy waral moo tax léeg-léeg nit tiit rek bi jaaw yow man yajaalul wildaanu shiba lu tax dañoo tiit liir bi dafa judd bi dafa judd bi jaaw pourquoi liir bi judd bi jaaw parce que dafa tiit ndeysaan dafa amoon benn waay bu feebar ñu jële ko benn dëkk bu tudd ño ñooro ñu indi ko hôpitalu Kaolack ñu ngi ko tëlal ci barankaar mu ngi tëdd docteur bi ñëw xool ko xool ko xool ko daa ne ku ànd ak kii benn waaye ne fële man ne ko kaay ñoom ñaari ñëw taxaw ne docteur bi wala mu wax ndànk dafa yaakaar ne sori na malade bi fekk malade bi xelamang ci ñoom moom ñoom lay déglu docteur bi mu ne waa ji seen malade bi day dee de mu ne ah mu ne kii day dee kii saye ndeke malade bi dégg na ko après waa ji daal di ñëw ne malade bi bon nañ la dellu nañ la dugalaat ci ambulance bi ñu delloo la dëkk bu quoi ba semaine bii di ñëw ñu indi ma mu ne ko mu ne ko déedéet mu ne ah lu tax mu ne docteur bi dégg naa lim ma dégg naa lim la doon wax mu ne lan la ma wax mu ne nee na damay dee dégg naa ko ñu dugal ko ci ambulance bi oto bi tourné balaa ñuy egg dëkk ba mu bi jaaw weex tàll te bu muy dem kawar gi daa ñuuloon deful cinq jours li weexoon li amoon lu ñuul ci moom yëpp kawar dafa ñuul dafa weex lépp tout amul une semaine mu faatu parce que doomu aadama soo tiitee tiitaange dafay waral bi jaaw moo tax yonent bi tiit daal di bi jaaw waaye yonent bi moom la ko tiitloo ak ñun lu ñuy tiitloo du benn yonent bi yàlla moo ne ko jubal xocc comme ni ma la koy santee ndax maa ngi lay gis moom xam na mu daal di bi daal di tiit ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam mu daal di bi jaaw mbokk jullit yi loolu bokk na ci li ñu saar bi di jàngal waaye bokk na ci euh, saar bi lu mu ñuy jàngal mooy li ñu sunu borom subhaanahu wa taala wax ndax ñi nga xam ne dañoo am yaqiin ahlul yaqiin ñi am yëg-yëg di sentir seen borom ci seen dund ñooñu seen xol yi moo munta supporter yàlla moo tax bu leen yàlla sante dañuy rëngi rëngi di trembler di lox di jooy ndax jaamu yàlla googu yàlla sant leen ndax dëgg-dëgg def nañ ko ni ko yàlla bëggee ixwatal iman saar bi bokk na ci lim ñuy jàngal moom ak yeneen yi nga xam ne moom la yonent bi wax mooy seen mbokk muy suratu xàq am na yeneen maarij takwir qaari'a ci jàng saar yooyu yaksifu lil qulub al aarifina sultaanuhu wa batsatu saar yooyu ñu wax léegi nii li muy dugal ci xol ñooñu nga xam ne ay jullit lañ gëm nañu yàlla mooy doole yàlla la ñuy sentir kàttanu yàlla la ñuy sentir su boobaa nag fa tazhalu minhum nufus suñu sentiree kàttanu yàlla yàlla ni mu amee doole la ilaha illallah yàlla ni mu nekkee ngand ni mu nekkee ponkal ni mu nekkee borom doole ak li mu defee saytara lépp lépp yàlla monopoliser ko ne ko këcc kenn du rëcc du ci asamaan du ci suuf nit yàlla mun na laa bàyyi di la seetaan ngay cëppi cëppi di tëb mel ne mel ne ginaar gu tawte di daw wala mbote mu ndaw xam nga mbote bu ñu ko juree ay fan day daw di entraîner di cëppi cëppi ah ki ko moom da koy xool rek allahu akbar di reetaan mbote bi moom mu ngi entraîner di daw vër vër vër borom ki ko moom mu ngi koy xool rek kooku lan lay wax tabaski ñaata fan a ci des kay daan ko des na ci ñeenti juróom mu naan jarul may jënd di xool mboto bi mboto bi di daw rek moom xamul lu muy daw waaw mooy ñun ñi yàlla dañuy xool ñuy cëppi cëppi rek dafa ne ñun mën nañu rëcc wala lu ñu neex def wala wala wala wala fekk demewul noonu ñu jege si ndax yeneen mbokk yi bu ñu ñëwee mën a dugg yàlla da lay bàyyi ngay cëppi cëppi di def li la neex waaye saar yooyu ñu wax léegi léegi ku ko jàng ci alquran di nga xam ne yàlla du morom. moo tax ñiy dendale yàlla morom nit pour mu dendale ak yàlla morom day fekk jàngul alxuraan doo gis bu ku jàng alxuraan comprendre alxuraan xam alxuraan di dendale doomu aadama ak yàlla wala muy jël yàlla di ko wàcce maqaamam wala mu naan yàlla bu nekkee nii yonent bi toog fii ma faar ma romb leen ak yu demee noonu mukk jamais koo dégg muy tuutal yàlla jàngul alxuraan koo dégg tegul yàlla palaasam jàngul alxuraan bu ko jàngee xamu ko bu ko xamulee dégg bu ko dégg ko yooyu yëpp dafa am ndax jàngeen rubba qaari'ul qur'aan wal qur'aan yàlla yal'anuhu am na kuy jàng alxuraan alxuraan mu ngi koy rëbb mu ngi koy jàng mais alxuraan baa ngi koy rëbb kooku xam ngeen ne jàng bi muy jàng baaxul kon saar yii di sa suratu Huud ak ya ca aju du saar yoo xamante ne nit ñi dañ leen di jàng rek var daal di dem al si alxuraan yëpp sax soo looloo tax ci al ci téere bi aaya yu njëkk yi li ñu borom bi tabaaraka wa taala wax mu ne inna allazi sayyaba nabi mu ne li bi jaawloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min surati hud qawluhu taala al aaya assaaniya asara muy aaya fukkeel ak ñaar mooy bi ñu waxoon sànq fastaqim aaya bi moo bi jaawloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wanzur ma'i ila al uslub at tarbawi al ula fi hadihi sura mu ne yow sama mbokk julit maa ngi lay dénk di sàkku ci yow nga ànd ak man déglu méthode éduca éducative bi yàlla wax ci aaya bi sunu kanam sunu borom nga xam ne sunu borom du moroom mu ne najit fi l aya al ula at taazim lil quran fa huwa kitabun la yatihi al batil min bayni yadayhi wala min xalfi nazala bihi ruhul amin bi amrillahi taala ala al habibi mustafa sallallahu alayhi wa sallam sunu borom bi muy wàccee saar bi di suratu Huud saar bi di wàcc première aaya yi njëlbeen bi yàlla dafa màggal alquraanu karim ndax waxam la yàlla daa màggal wax ji ndax téere la boo xam ne borom bi ne laa yaatihi albaatil min bayni yadayhi wala min xalfi téere bi amul nit caaxaan yi muy indi lu dul téere bi day maîtriser caaxaan yooyu doo ko ci dugal mu bokk ci soo bëggee fooy sa dund tamit téere bi ñëw ne la yow mi li nga nekk du dëgg caaxaan du dugg ci téere bi kenn mënu ko falsifier ndax waxu yàlla la tabaraka wa taala xool leen septième siècle ba fii ñu toog su imaam bi taxawoon léegi di jàng alxuraan daa di jàng jaxase aaya lu ngeen koy wax si ne woon bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamina maliki yawmiddin lu ngeen di wax subhanallah nga gis gars yi jàkka jëpp bu yéexee tuuti jàkka jëpp ko risiko damay seetaan ci youtube bi benn élimaan bu feebar waaye feebarewul këram dafa ñëw ci jàkka ji feebar daa ñëw ba ñu noddu ba li xam mu dem biñ kàbbaree rek si buru bi dugg mu ne alhamdulillahi rabbil alamin mu commencé sëqat arrahman fexe forcé sëqat bi topp forcé forcé ba fatiha jeex mu jël benn aaya ci ci ci alquran ci yenn saar yi mu mu jéem a dem benn aaya yëf yi dëgër métti léegi nag sëqat bi jàpp na ko ba kenn déggatul lu muy wax mu taxaw waxatul ki noddoon li xam daa di ñëw ci kanam jàpp ko dellu yóbbu ko palaasam daa di taxaw fi mu taxaw daa di continuer même aaya même saar yaakaar naa loolu ku dem di nga tàppe rek da nga koy gis nafs aaya la jël amul leneen amul sàmba amul demba fii Sénégal imam bi danaan wa duha walayli isa isa ñu ne ko isa saja mu ne isa samsu ko wirat wa isa nuja nga ta la ilaha illallah la ilaha ndeysaan xam nga kee juumul ah te dañoo ñëw ndeysaan te loolu mu loolu mooy loolu mooy wutale imaam yi imaam buy julli njàppam toj wala mu feebar mënut a yeggali wala mu faatu mu dee imaam kàbbar rek daa di dee kenn ci sàppe yi dañoo war a dem ci kanam yeggali julli gi da ngeen yaakaar ne julli gi dañ koy dagg nekk di daw di waaye ambulance ak di yuux déedéet loolu depuis jamono saxaaba ya la Omar bi ñu koy rey ci biir jàkk ji la Seydina Ali bi ñu koy rey ci biir jàkk ji la mais dañoo yeggali julli gi Sénégal nag ñun dañoo réer ba nga xam ne li tax ñu réer nag ñu yàqu nii mooy wax dëgg yàlla alquran bi lañ bàyyi alquran lañ sori defuñu alquran suñu ah loo xam ne moo war a nekk suñu référence boo xam ne mooy moo nuy gidda ci suñu dund déedéet ma jox leen benn misaal bu ndaw rek ni ñuy ni ñuy duggee Facebook di lire ak di jàng ak ak ak ni ñuy duggee YouTube di jàng ak ak ni ñuy lire journaux yi ak ni ñuy lire alxuraan boobu benn waaye daf cee def benn dessin bu garaaw ci YouTube bi ci Facebook bi dafa dessiné jàkka ji mu dessiné stade mu dessiné banque mu dessiné Yu- YouTube fu nekk nit ñaa ngi rang stade bi nit ñaa ngi rang tribune yaa ngi fees banque bi nit ñaa ngi rang buntu baa ngi fees YouTube bi mu ngi fees daal alxuraan moom ak jàkka ji ñaari nit ñoo fa nekk ndeysaan alxuraan jàkka ji ñaari nit alxuraan moom benn waaye moo fa toog rek yor téere bi te ku ko romb sax ne ko am yàlla jox la gisuloo ñuy yelwaan dañuy toog ñu mel ne gaa yi romb jox la ñaar dërëm wala gis na loolu ndeysaan benn waaye day dem fenn muy jël taxi mu ñëw fekk borom taxi bi mu ngi jël ñaari tànkam yi aj ko ci baar bi wéeru di jàng alxuraan quoi mu ne nii kan kan kan borom taxi bi ne ko nii mu ne ko amaata axat dafa am ku dee waa ji ne ko waaw dafa am ku dee mu ne kan moo dee mu ne ko sunuy xol waaw maata qulubuna Sénégal wala ñuy jàng alxuraan am ku dee di ah GIE groupe kaamil yi bu kenn dee rek ñu daal dajale njànganeema alquran te cafan nay kaamil Sénégal ngay dégg ñu ne jàng nañ cent kaamil na ngeen dajaloo ngeen ñëw bu ñëwee guddi gi balaa jàng yi commencé dinañ jàng téeméeri kaamil non ñi ñoo ñëwee ñoo ñëwee téeméeri kaamil téeméeri kaamil la lañ ko jàngee benn kaamil rek benn kaamil laa la wax allahu akbar benn kaamil rek li gars yi di wax fi jàng nañ ko ñetti minute ñetti minute nga ne la dóor nañ kaamil bi léegi gars yi ne dóor nañ ko wax na ngeen dëgg dóor ngeen ko kay waaw loolu ngeen ko loolu musiba la mbokk yi alquran du téere barkeelu saar yi ñuy jàng yunus huud yi aaju yi ñu passé ak yi ñoogul du téere barkeelu téere boo xam da ngay ñëw rek ne nii ak sa jaajëf eh, am naa amu temps yi kaamil bi ma yor amul njëriñ téere bi li ci biir lañ la wax nga dund téere bi encore du pour ku dee ma waxaat ko du pour ku dee jàng leen leen suratu yaasin yàlla mu ne li tun zira li tun zira man kaana mayitan ah hayyan baatu hayyan lu muy tekki li tun zira lu muy tekki pour nga waar man ismu mawsul kan man kaana hayyan ku dund téere bi pour ku dund la téere bi lan lay wax aqimi sala wa atu zaka ah du téere bi loolu lay jàngale julli leen woor leen joxe leen azaka aji leen màkka def leen lii bàyyi leen lii bàyyi leen yaalo bàyyi leen naan sàngara bàyyi leen fen bàyyi leen sàcc du téere bi loolu lay jàngale léegi nag nga bàyyi waa ji mu def yooyu yëpp ba dee nga ñëw tim ko naan qala allahu taala fi mukami tanzili ya ayuha nnas ibudu rabbakum allazi xalaqakum wallazina min qablikum laallakum tattaqun fekk daawul jaamu yàlla allazi jaala lakum al arda firaasan wa saabila wa saabila jàpp ay di yàqati waa ji lépp lu ñu doon tere ci alxuraan da ko doon def ah yàlla nee na julli leen moom daawul julli yàlla mu ne nañ woor moom daawul woor joxe leen azaka moom daawul joxe azaka aji leen màkk moom dafa bañoon bu leen def lii moom da ko doon def ngeen di liir aaye yooyu te yàlla ne téere bi pour ku dund la du pour ku dee kon nañ jàngal waa ji alxuraan balaa muy dee léegi nag ñun balaa ñuy jàngal alxuraan nit dee ñu ñëw dajaloo teg kaamil bi ku nekk jël am na ñoo xam ne xamuñu dara jafa dañuy jël wa am na ñoo xam ne bu ngeen demee ci internet bi ñi ngi jàng alxuraan da ngay déglu ba sonn benn arab dafa daje woon ak benn benn benn waay ci dëkk di réewu Afrique yi mu fekk waa ji di jàng alxuraan yor juzu amma bu ndaw bi di téere amma bu ndaw téere amma waaye yaa ngi jàng isa sama on fatarat waaye ma isa on pantorat waaye ko on pantorat waa ñu mën a yow eh arab bi naar bi mu ne attends yow looy jàng mu ne ko alxuraan laay jàng nga ma loo gis gis téere bu ma yab mu ne non c'est pas possible waxal isa sama on pantorat naar bi am problème quoi lii xam nga naar bi nu def jël benn feuille ak bic ne ko léegi bindal ma li ngay jàng mu bind bàyyi bismillah bind ko normal maas ko ne ko am naar bi ne ko mais c'est pas possible xool bind yi mu normal mu xool kaamil bi mu normal mais mu ne mii yow istamam pontorat amul jaal xuraan way dal kawaake moom taasir maa dal maa xu jërat ah loolu la waa yoonoo ni fa shakkir innama anta mushakkir est ce que loolu am na ci alxuraan fa shakkir innama anta mushakkir loolu da ngay gis kuy jàng te li mu tiim du téere bi te loolu moo bëri ci mbir yi ah loolu moo bëri ci ñuy jàng loolu musiba la kon téere bi di alquranul karim sunu borom subhanahu wa taala ci njëlbeen yi day wone téere bi euh, ni ko yàlla màggalee ndax amul lenn caaxaan loo xam ne mën ngaa dugg ci téere bi mu ne jibril moo ko wàcce al amin ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam qad uhkimat ayatuhu kulliha aaya yëpp la ñu xereñal aaya ci alquran yëpp amul benn bu bu- buñ bàyyi yëpp ay àtte ñoo ci nekk ak ay njàngale yëpp nag borom bi yemul ci loolu mu ne fala xalala fiha wala baatil kenn du gis ci alquran loo xam ne dañ koy corriger déedéet tey bokk na ci àddina bi li leen alak mooy yàlla wax ci alquran ne nii la ñun ñu ñëw ne nii la yàlla mu ne góor ak jigéen ñoo war a sëy ñu ne non góor ak góor mën nañoo sëy jigéen ak jigéen mën nañoo sëy miraas yàlla mu ne góor day am ñaar ñu ne non jigéen day am ñaar góor am ñaar wala ñu tolloo lépp lu yàlla wax ci alquran nit ñi dañoo pare pour jël seeni bic di ko corriger ne yàlla li mu wax du am te adduna bi noonu la bëgg a dundee dañoo bëgg a jël mbir mi wëlbati ko musiba gën tëree loolu musiba gën tëree ay nit seen système de vie fi ñu war a àttewoo li ñu war a jàng li ñu leen war a dundal ñu daal di koy juutal ba pare ne seen dund baax waaw loolu musiba la weesuwul loolu doomu ndey yi machine yi ngeen ngeen di calculer soo defee machine bi 1 plus 1 lu mu lay génneel ah 2 léegi nag yow boo ne machine bi du génne 2 4 lay génne wala 10 machine bi daa nar a yàqu da nga ko forcé mais du génne loolu pourquoi parce que machine bi liñ ko programmé mooy 1 plus 1 égale 2 2 plus 2 4 mais boo nee du def loolu problème day ñëw léegi nag ñun suñu dund yàlla nim ñu programmé ñu ñëw ne du duñ def loolu yàlla na toog kaw asamaan di seetaan quoi garaawul dañ dóor moon dund gi ragle ko ñëwaat fekk ko ne koy jë ñëw na ñaa ñoo ngi nii waaw teew nañ nag ñoo ngi nii waaw teew nañ waaw doxal defal li ngay def nag du baax de loolu du diine de yàlla allahu akbar mu du kooku yàlla du kooku yàlla du loolu du kooku yàlla dafa rëdd yoonam ne tegu leen ci te ñëpp la ko wax mag ak ndaw góor ak jigéen ku xam ak ñëpp mu ne tegu leen ci gars yi ñu xejal ñi nga xam ne ñoo ngi yegg si ñu góorgóorlu quoi incha allah ba ñëpp rek mën a toog jëriñu su ko defee sunu borom subhaanahu wa taala ni mu organiser téere bi organiser ko nazman muhkaman fi lawhil mahfuz foofu la ko njëkk a organiser ca kaw asamaan organiser ko dajale ko ba mu mat mu koy wàcce tuuti tuuti ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu nekk loo xam ne dafa ëmb ay digle ak ay tere téere bi loolu moo ci nekk def leen bàyyi leen wala du loolu alxuraan nekk alxuraan def ñu ne def leen wala mu ne bàyyi leen léegi nag ñun lan lañ bàyyi ñun dañuy def rek bàyyiwuñu dara lépp lañu rajax soo waxee ñu ne garaawul jëdd na- yàlla nañ comprendre quoi non got naan di télé dañuy comprendre di dof dof lu di saali ku ci dee ba dajeeg yàlla ci got dinañu comprendre lu baax diine amul ay fo diine du kaf diine du caaxaan diine du foogoon naa déedéet ñaata yoon la ñu yàlla di tere njort yooyu ñuy njort te dara baaxu ci yàlla li mu bëgg mooy nga def te bi ngay def yaa ngi am yaqiin yaa ngi am kóolute waaye di njort rek garaawul mën nañoo bañ a jaamu yàlla mais mën nañoo dugg àjjana ah bon waaw ndax père diw mu ngi foofu sëñ diw a ngi foofu alaaji diw a ngi foofu móodoo ngi foofu sàmbaa ngi foofu dembaa ngi foofu yeroo ngi foofu loolu wóorul de te loolu wérul de yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi foofu te saxaaba yi wékkuñu woon kon seen bopp ban saxaaba ngeen gis mu ñëw na yonent bi ëllëg yow mal xiyaam kay incha allah gis naa ci benn vidéo benn waay naan sëñ bi boo ñu jiitoo way nag ñu xaar nag ñu xaar o man yee wala xaw ma daal waa ji di dof dof foofu boo ñu jiitoo nag ñu xaar wala ñun buñ la jiitoo fuñ lay fekk yoo loolu wóorul de yooyu yëpp balaa caag doo dem jaamu ji yàlla comme da ngay xaar ñu yóbbaale la ay fan lañ lay yóbbu ak foo ñuy fekk loolu wóorul yow da ngaa xam fooy dee ah même boo dee woon nii ñu suul la fii suul ko fii malaaka yi ñëw moom du ko yëg loolu dafa wóor ay foo ñuy fekk ak fan lañ lay fekk ak boo ñu jiitoo nag ñu xaar nag ñu xaar na moom da ngaa xam fu mu jëm moom lay xaar Sénégalais yi man xaw ma seen bopp yi fu mu nekk te añ bu jotee doo xaar kenn de wala ah moom du la xaar de bu lay xaar ñetti yoon la lay xaar jé yàq nañ ngay dof dof lu boo ñëwee mun a la gis nga bu ñu fontoo ñun dañuy añ reer bi noonu la lépp noonu la kenn du la xaar boo takkee jabar doo xaar kenn yenn saa yi sax gaa yi indi seet bi nga jóg leen ñibbi guddi na nag soof trop te yaa leen yónni woon wala waaw léegi jaamu yàlla jot nga naan yow da ngay xaaraate te yeneen yi sa àllu àllu àdduna xaaroo ci kenn sooy xëy koy xaar ci ñun fii kuy xëy kan ngay xaar soo demee di ubbi sa place koy xaar sooy sol sa tenue di liggéey koy xaar ah su weer dee ngay jëli sa salaire koy xaar kaay leen ñu jaamu yàlla bàyyi fom yi bàyyi caaxaan yi jaamu yàlla kenn du ci xaar nit yàllaa joxe ndigal inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ya ayyuha allazina amanu fiilu amrin la jaana ndeysaan dama àndoon ak sama benn xarit mu ne day jëli wirdu ci benn sëriñ bu dëkkoon fii ci fiñ mi ñu ñëw toog sama xarit bi jël wirdu bi ba pare mu ne ko waaw nii nga koy def suba ngoon nangam nangam mu ne ma yow nag ma ne ko yàlla jox na ma ko ba pare mu ne lan fala la ko yàlla joxe ma ne ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu mu ne ma ma ne ko lu ci yàlla teg ma ne ko sallu ma ne ko fiilu lan la mu ne fiilu amrin ma ne ko ci ñooñu laa bokk yàlla du ma ko jox ma dem di ko jëlaat ci keneen mu ne kii ibaadu la mu ne sama xarit bi kii ibaadu la kii ibaadu la xoolal ñu dem de maak sama xarit bi ñu ànd dem kooku demaat fa mu ne ko moytul kooku de waa ñu ñëw naan ma sëñ bi nee na ma moytu la ma ne ko waa baax na parce que sëñ bi da lay nax lim lay jox da koo moom salaatu ala nabi ko moom kan moom moom salaatu ala nabi ba koy joxe imaginez ab julit ne man noono bala ma koy def rek ñu jox ma ci ndigal kan moo ko moom ba ciy joxe ndigal yàlla jox la ne la defal waa ji ne la bul def ba ma jox la ci ndigal maa ko moom mel ni moom la yàlla yónni balaa ñuy julli nga ni jox ñu ndigal balaa ñuy woor jox ñu ndigal balaa ñuy def dara nga ni dama dañuy jël si ndigal bi nga takkee jabar ku la jox ndigal dama nga fanaani bi añ jotee ku la jox ndigal na nga añ bi nga bëggee dem duus ku la jox ndigal ne la demal duus dangaa xaar ndigal ne xaar xaar leen tuuti bañ jox ma ndigal ma doo ko dem ci toilette yi yooyu ay caaxaan la nañ ci génn jaamu yàlla kenn du ci xaar kenn gis nga saxaaratu firawna jàngal nañ ko bi firawna ne njabarkat njabarkat yi njabarkat yi tuub mu ne dinaa leen rey dinaa leen daggate dinaa leen yeew ci garabu tàndarma yi ba ngeen dugg ci biir lu tax xaaru leen ma ma jox leen ndigal ngeen gëm innahu la kabirukum allazi allakum allamakum sihra ah ki mooy seen kilifa mu leen jàngal njabar ngeen ñëw fii mu wax rek ngeen tuub di ngeen xam tey gars yi ne xam nga lu ñu ko wax ngëm yàlla kenn du ci xaar ndigal ngëm yàlla feeñ nañu gëm nañu yàlla boo ñuy rey nga rey ñu faqdi ma anta qaad innama taqdi hazihi alxayaati dunia defal li ngay def àdduna rek nga mën alaaxira ñoo yow ñoo fa yam tus nga fa mënul te sax firaaw na ñoo ngi lay yëgal suñu yaram yi rek nga mën a daggate waaye suñu imaan mënoo ci dara yaram bi nag bu la neexee nga jàpp daggate waaye imaan bi moom terminé mënoo ci dara aa ngëm yàlla kenn du ci xaar kenn mbokk yi julli kenn du ci xaar kenn woor kenn du jaamu yàlla ci tout court da ngay gis koo xam ne nga ne waaye lu tax booy julli doo def nii non sama papa nee na ma xaar ba ci kanam quoi nga gis benn xale bu jigéen waaye dox doo muuru mu ne sama jëkkër dee na aw ma ci ndigal wala sama suñu aw ma yàlla lu mu wax yaa ayuha yaa ayuha nabi qul li azwajik wa banatik wa nisaa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yurafna fala yuzayna wa kana allah loolu du ndigal yow yonent bi waxal say soxna waxal sa doom yu jigéen waxal jigéen ñi jullit ñi nañu muuru ana loolu du ndigal yonent bi waxoon na asma jigéen bu gisee baax kanamam ak tinqam dara waratu cee yaramam dara waratu cee feeñ lu dul kanam ak tinqam loolu du ndigal léegi looy xaarat ah kon dafa am yoo xam ne dañuy nax ku bëgg a ku bëgg a ku bëgg a dugg aljana nag mooy koo xam ne nax yooyu génn nga ci gis nga xumb xumb yi ngeen di gis yëpp ay naxaate la maa leen ko wax fii ay naxaate la ku ci diglewul jaamu yàlla ku ci diglewul topp yonent ku ci diglewul nit ñi lu baax jaaraloo la woon ci saraatal mustaqim dama leen da nga leen di nax loolu kese la dajale jaamu yàlla yi di leen nax kese ak di leen jëriñoo loolu kese ku ci bëgg a jëriñ jaamu yàlla yi mooy ku leen wax dem leen ngeen jaamu ji yàlla yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu da bi mu dajale saxaaba yi lu mu leen wax raxasal leen ma sama sama sangal leen ma sama mbaam mi sangal leen ma giléem yi defar leen tool yi yonent bi alayhi salaatu salaam bi ñuy liggéey jàkka ja sax da doon yenu birig di ñëw jàngaleen wax leen ma ci lislaam lu ñu doon liggéey yonent bi toog wax leen ma ko bi ñuy gas xanda saxaaba yi gas ba egg ci benn xeer bu ngand boo xam ne xamatuñu ni ñuy def mu baare leen ñu ne yonent bi mënatuñoo dem mu ne lan la ñu ne ko xeer mu ne àl leen ma pikk bi mu ñëw ñu jox ko pikk bi mu dóor affaire yi génn étincelle mu dóoraat mu génn étincelle mu dóoraat benn lumière ne jëli ah mu ne maa ngi soo maa ngi seen soorooru Qaysar l'islam dina fa dugg mu dóoraat beneen lumière na sar mu ne maa ngi séer soorooru Saam l'islam dina fa dugg waaw yonent bi kon musul toog di sallallahu alayhi wa sallam ar rasul salawatullahi wa salaamu alayhi musul toog gaa yi defaral ko pourtant bu bëggoon gaa yi defaral ko benn ngandum piliyaan mu jaaxaan gaa yi tegal ko njaaga am na benn kër gu ma demoon ma fekk waa ji toog ndeysaan ñu tegal ko benn piliyaan mu ne nii fii trois personnes ñoo fi nekk ku nekk mi ngi kii bés kii fii lay bés ba fii kii fii ba fii kii kii mooy xëcc baaraam yi mu ne waan nii fii tamit trois fii nii cinq personnes tànk bi fii cinq personnes ci kanam deux personnes ñooy ñooy xëcc baaraam yi waa ji mu ne nii am na ku taxaw fii di defar yi naan nii affaire bi neex na de o mu ne nii léeg-léeg mu ne ma saa yi yaa ngi ci jaaw ne ko yaa ngi ci jaaw illa illa moom damay toog di jàng jàng jàng xool xool xool xool te ñee ñu ngi koy def jaamu yàlla goo xam ne ni ñu koy xëccee jaamu yàlla gu sell lañ koy defee mais loolu xam ngeen ne mbokk yi amul benn njëriñ yonent bi bëggoon loolu saxaaba yi defal ko yonent bi dafa génn àdduna ñu suul ko ñu ñoba ñu ñibbisi Fatima doomu yonent bi ne ne Bilal waaw Bilal yéen yéen yéen yéen yéen yéen yéen doy ngeen waar de Bilal yéen naka ngeen jàppee yonent bi gas suuf su ma ko dugg ci suul seen yaram dawul Bilal ne ko Fatima innahu amrun min awamirillah lii santaane yàlla la ndigal yàlla minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra xanaa yow Fatima fàtte nga yàlla nee na damaa tibb suuf bind leen su ngeen dee ma dénk leen suuf yow mal xiyaam bu ma leen di dekkil ma génne leen suuf Fatima sa papa bu bëggoon bi muy dund ne nañ ko defal benn piliyaanu or boo xam dañ ko yëkkati ba ci kaw asamaan wallahi ñun sahaaba yi pare nañ pour def ko waaye lii nga gis nii mu faatu ñu gas ba mu xóor suul ko santaane yàlla la kon jeex na santaane yàlla la yàlla santaaneem def rek imaam ahmad nee na isa qaala allah wa rasuluhu fa bil ayn yàlla bu waxee ak yenent jëfe rek amatul xaar kenn wala sàmba wala demba wala keneen mbokk julit yi saar bi dafa ñëw encore di jàngale wahdaniyatullahi taala kennal yàlla danañ fekk ci suratu hud kennal yàlla te tey loolu dañ loolu dañ ci am problème bu rëy kennal yàlla léegi looy dégg nañ kennal diw kennal diw mais naka la ñuy kennale diw te kennalu ñu yàlla kan lañu war a kennal diw kenn nañ koy kennalee naka la ñuy kennalee diw diw kenn mënu koo kennal lu tax lu tax kenn mënu koo kennal kooku ah déedéet damay laajte lu tax nit ku ñu bëgg a kennal nit kenn mënu koo kennal lu tax ah dafa am yaay am papa ah am juddu comme ni ñu ni ñu juddoo mu am ay moroom ñu ne ñu ne ñu ne duñ ko duñ koy kennal kenn mënu ko kennal parce que moom am nay moroom moom wala dafa ñëw amul nopp dafa ñëw amul nopp du ngeen ma tontu daa ñëw amul bët daa ñëw amul bakkan daa ñëw amul gémmiñ daa ñëw amul bopp daa ñëw am ay laaf dinaaw daa ñëw yor benn tànk niñ koy kennale kenn dong lañ mën a kennal mooy yàlla ndax yàlla amul morom yow am nga morom ñu ne nañ la kennal nan lañ koy kennale kon saar bi dafa ñëw di ñu jàngal wax daaneetulaa te ñun Sénégal tey problème bi ñu njëkk a am mooy kennal yàlla mënuñu ko so weli allah e ñaata yoon yéen pëli ngeen koy wax so weli allah e ah yéen olof yi ñaata yoon ngeen di wax bu neexee yàlla ak léegi sax kenn du wax bu neexee yàlla ak lu ñuy wax ah jeexut waaw diw mooy na bo- mooy borom na am mu am su nee na am day am diw moo téye asamaan diw moo puus géej gi kële moo naan xorom bi kee moo diwoo kaani gi Hee. barki démb benn vidéo bu ñu ma awee waa ji dafa wax ba pare kii benn waaye ndeysaan ci suuf na waa kii tamit mooy kan xanaa kii ku bees la la ko fii kay bi su ne ku bees ñëw subhaanallazi laa ilaha illa huwa bés bu nekk nga gis ku bees di wax wax yoo xam ne dégg naa démb kenn ku ne man mii ngeen gis ñu ne ah mu ne man maay yonent bi maa demoon ñëwaat maa ngi nii toog ah bon yaa demoon foo demoon ku lay ni yonent bi ab arab la woon yow yaa ngi ñuul kuk nga ne yow la yonent bi Muhammad nga tudd yow yaa ngi tudd xaw ma bàyyi xaw ma lan yooyu yooyu yooyu mais vraiment mais xam nga man lu ma jaaxal Sénégal mooy da nga gis ko wax loolu gars yi di jooy di di dof doflu te yéen xam ngeen ne du dëgg loolu lu ci nit di daanu ak a neexoon ñu ne ko ragalal yàlla bàyyil font bàyyi caaxaan yii xam nga ne doo yonent bi mais kenn ñemewu ah wala ñaata yoon lañ fiy dégg loolu mais kenn ñemewul wax du dëgg loolooy suñu problème su ko defee xale yi daal di koy gëm daal di alku daal ci topp di daw dafa ne dëgg la fekk du dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musta ñëw Sénégal na leer kaaba gi kenn mus ko kaaba gi ñëw na Sénégal ak Jibril malaaka yi moom Jibril lañ ci gën a yab Jibril fan la ñëwee Sénégal kaaba gi fan la ñëw Sénégal Safa ak Marwa fan la fi ñëw barki dem dama ànd ak sama soxna ñu gi- romb benn kii man ko gis nga gutt yële ngay seen mu ne waa ma ne ko zam-zam la ñuy rooti fee ci zam-zam mu ne ma mu ne ma kaaw bàyyi li ngay wax ma ne ko walla xoolal deux minutes nit ñi di yéeg di yenu ay gutt ma ne ko gis nga waxoon naa la zam-zam bi la ñuy rooti léegi ñu ne bu màkka jotee zam-zam bi day daw dellu màkka su suñu ajee ba pare zam-zam bi ñëwaat Sénégal toog naka la zam-zam di ñëwee di daw di ñëw Sénégal ak di toog ñuy tànq yéen yaakaar ngeen ne zam-zam mu ngi Sénégal kan moo gëm fi ne zam-zam mu ngi Sénégal yéegi sa loxo ah zam-zam lu mu ut Sénégal zam-zam romb romb zam-zam mënul sax dem Medinatul Munawwar buuru Màkka dafa defar benn immeuble bu rafet Médine defar ay machine installé ak wetu Kaaba gi ay hôtel yoo xam ne mu defar pour indi ay machine pour nañu ngacc xëcc pression bi mu yéeg zam-zam bañ a bougé Medinatul Munawwar fa yeneen bi tëdd xam ngeen zam-zam lu ko fay yóbbu ay oto ñoo koy yóbbu ndeysaan nii nga leen di gisee ñu ron des centaines de auto camion ay citerne ñoo yóbbu ndox mi Madinatul Munawwar waaw yonent bi fu mu tëdd mënut a am zam-zam Sénégal am zam-zam am Kaaba ah am Safa ak Marwa am Hajaratul Aswad am am lan Yatu Moussa am lan du ngeen ma wax li ñu am yëpp wax leen yëpp subhanallah yooyu yëpp fu ñu ko jëlee tey yooyu léegi nga léegi léegi soo jógee léegi ñu war la ko ñu ne la moo ngi nii waaw moo ngi nii amuñ ci benn kersa ne la moo ngi nii ajaratu aswad bi ah am na benn kilifa bu toog ci télé bi naan xam ngeen luy xaajaratul aswad dégg ngeen ko wala déggu leen ko du ngeen ma tontu. gaa yi na gaa yi na mu ne xam nga lu xaajaratul gaa xeeru ku ñuul ki yéen ñi jàng arab xaajaratul aswad lu muy tekki yéen ñi jàng arab laay laaj xaajaratul aswad lu muy tekki est-ce que xeeru ku ñuul ki lay tekki xaajaratul aswad non c'est pas possible innama axaafu aleykum ñu ne ah mu ne aimmatil mudillin wallaay yonent bi dafa toog septième siècle di ñu wax ay miracle yoo xam ne ñu ngi ci teg suñu bët yonent bi nag xam ngeen lan laa ragal ci yéen sahaaba yi ne pat mu ne ay njiit wala waxul sax ay kii- ay borom xam-xam a imma la wax I- imaam mooy lan ku jiite a immatil mudillin ay njiit yuy réeralaate mooy kooku ci la bokk di wax loo xam ne du dëgg di firi aaya yi di ko firee nu la neex jàpp hadis yi di ko firee nu la neex di falsifier mbir yi di ko waxee nu la neex te amoo ci benn gàcce amoo ci benn kersa te xam nga ne li ngay wax du dëgg loolu mooy problème mu Sénégal tey léegi nag lan mooy problème bi mooy su fekkee dafa am ñu bëgg a jaamu seen bànneexi bakkan daal lay ne waaw diw moo ko wax dem def ko waaw nit mun naa woor jël ay weenam di bomb jëkk di bomb di bomb jëkkëram dara nekku ci wala déggu leen loolu di ko ko forote waaw nit mun naa woor jël weenam di forote jëkkëram yéen ginnaaw wax daaneti la saar bi di ñëw di jàng an nubuwa wal baas wa ila zalika min al imaniyat di jàngale yonent yi yàllaa leen yónni di jàngale danañ dekk ëllëg yowmal qiyaam ak yeneen mbir yi nga xam ne saar bi daa ñëw di ko jàngale ci ay yoo xam ne dafay yokk imaanu nit waaye saar bi ñëw di jàngale li mu dige ak li mu tëkk ñaar dafa am dig lu baax la ah tëkku nag ay duma la alwaad mooy liñ la dig ci lu baax soo ko defee ñu fay la tiyaaba tëkku nag mooy ay boo defee nangam ci lu bon safara nga jëm saar bi tamit dafa ñëw di di def loolu wa sawaab wal iqaab di jàngale boo defee dara am tiyaaba yàlla fay la waaye boo defee dara yàlla mbugal la mu ne fal yakun qur'an azim fi qulubina mbokk yi nañ def alquran ci sunuy xol waaw benn waaye doon na jàngale ba ci àgg muy wax ci yonente bi alayhi salaam muy laaj fan ngeen ko dugal gaa yi naan fii fu ngeen ko dugal gaa yi naan fii waaye yéen tamit alquran mbokk yi dugal leen ko fii fii la ñuy dugal alquran ci sunuy xol suñu bëggee dund dund gu baax dund gu sell dund gu set dund goo xam ne du am bokkaale du am bidaa du am dara nañ jël alquran def ko fii màtt ko ak sunuy dëgëj loolaa waaye wax pourtant alquran nee na la wasinu bil qistaas al al mustaqim yàlla nee na luñ la wax nañ ko peese tey jii su ma nekkoon commerçant buy jaay ceeb nga ñëw ci sama bitig ne ma jaay ma ceeb ma daal di ubbi saag bi daal di ne nii ba sama ñaari loxoy fees ma ne foo koy def nga indi sa pot wala sa mbuus wala sa leket ma ne la nii nga ni ma kilo laay jënd ma ne la waaw mat na ne ko nii nga xool ma ne ma lii nag ma ne la mat na looy wax ah ah da nga naa ma waaw yow lu tax peese woo ko man la noo man nga ne ma noonu nañ ko peese nit su la waxee dara ci alxuraan ne ko nañ ko peese peese ñaata balance lay am dégguma dara de ñaar alxuraan ñaari ña ah, ah, islam ñaari peese la am alxuraan ak sunna du balance ñaari plat la bii mooy alxuraan bi mooy sunna waa ji ñëw ne la misaal julli de moom jaruñu koy def julli nga ni ko xaaral ma seet xaaral ñu peese ko nga jël ko teg ko ci balance alxuraan di nga gis lu ko dindi wala doo ko gis ah soo gisul ci alxuraan rek boo ko tegee ci balance sunna yonent bi wax ci kon ku la waxati dara ci diine pour nga xam ne lii vala ma baax na wala baaxul lu mun a nekk la wala munta nekk peese ko arrahman allama alquran xalaqal insaan allamahul bayaan assamsu wal qamaru bi xusbaan wan najmu was sajaru was samaa rafaaha wa daal misaan peese baa ngoog wa daal misaan yàlla nee na dee leen peese ku waxati dara màkka de jarta dem nga ne ko ha waaw jarta te dem comme am nañu fii kii baa ngi nii nga ne ko xaaral ñu peese ko di nga fekk màkk danañ dem wala duñ dem ku ñëw ne la ah ja- jigéen ñi moom takkal rek takkal ba doyal nga ne ko déet nañ ko peese nga ñëw alxuraan dindi ko luñ la wax mais ñun suñu borom leen nag luñ ñu wax amul peese gëm rek kan moo ko wax Baye Samba Baye Modou Baye Ngañ Baye Demba gisoon na ko fële waaw Baye de biñ koy wax Baye Modou fekke na ko Baye Ngañ ndangam te témoin la Baye kii ba muy kii ah ba muy puus géej gi ñoom Baye Ngañ ñoo ñoo ko téye woon ndigg li fan lañ jàngee ci alxuraan Baye Ngañ ak Baye Modou ak Baye Demba fan la nekk ci alxuraan bi ndeysaan gis naa benn waaye bu wax dëgg mu ne àllarbay kare ñu ne tey la àllarbay kare bu kenn sangu mu ne ma ne tàngoor wu bon bi sangu leen àllarbay kare dañ fa nekk ci alxuraan ah dama leen di laaj àllarbay kare mu ngi ci alxuraan dafa nekk ci sunna naka la ko julli di gëmi kon ñu ne la sangul nga naan tey du ma sangu hande min loototaa ko min nguppataa min ɗannotaa ko kono on wiyaani on ñaamataa de ah tey duñu duñu sangu duñu fóot duñu tukki duñu duñu watu duñu ah waaw duñu kenn du def dara waaw léegi loolu yëpp ñu lim lu tax waxuñu duñu añ kenn du lekk lu tax waxuñu ko lu tax waxuñu duñu reer lu tax waxuñu duñu ndékki lu tax waxuñu duñu dem duus yooyu dafa waxuñu ko ci wala wala wax nañ ko ci caaxaan rek ay àllarbay kare tey mooy àllarba bi mujj ci at mi àllarba bii ah dara wéru ci bi daa la te yooyu ku ko gëm booy dee dem safara ndax da ngaa weddi waxu yàlla i'mal fi kulli yawmin ma shi'ta fa inna al ayama kulluha lillah la tadur wala tanfa defal lu la neex ci bis bu la neex bis yëpp bisu yàlla la amul bis buy lore amul bis buy jëriñe lii lore ak lii jëriñe fu mu nekk ci yàlla waaye indil ñu ay aada indil ñu ay bidaa indil ñu ay xarfa fuufa kenn xamul nit ñi tey si- seen dund nu ñuy dundee kon saar bi tamit bokk na ci saar yi nga xam ne dañoo ñëw di jàngale ginnaaw lii ñu wax ne dañoo war a gëm alxuraan defal ko suñu xol takkoog alxuraan jëfe ko comme ni ko salafu saalih defee woon amal uslubu saani fa hiya at tasliya saar bi ñëw na di dalal xelu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndeysaan yonent bi léeg-léeg yàlla ne ko ah da ngay muñ rek de comme yonent yi ni ñu muñe woon léeg-léeg yàlla ne ko xeet yu njëkk yi tamit nii lañ meloon pour yonent bi xelam dal pour ndax dafa am yu koy métti comme ñun ñëpp ni ñuy déggee fi yenn saa yi mbir ñu métti ñu alxuraan loolu la wax laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi xoola yàlla yónni ko ne ko fexeel ba ñëpp dugg aajana yonent bi di xool ay nit xam ne ñi safara lañ jëm da koy métti loolu moo ko waraloon ba suuratu Abbasa wàcc ci kawam mu ngi bëgg yéeféer yi tuub Abdallah ibnu Ummi Maktum ñëw ndeysaan muy xool côté bii ndax Abdallah bañ a yegsi yàlla ne ko ha abasa wa tawalla an jaahu al ama wa maa yudrika la allahu yooyu la waaye yonent bi xam ngeen ne yorul melokaan boobu waaye dafay xër yenn saa yi ci xeet bi bëgg ñu jël message bi bëgg ñu bàyyi caaxaan yi nekkoon bëgg ñu dugg aljanna waaye ndeke ndeysaan ci ñoom dafa am ñu fétteur lu ñoo xam ne ngay wax ba sonn ñu ne la waaw pare nga nag pare nga nga ne waa ñu ne cay cay diw fekk yow yaa ngi yen doo wax ba am yaakaar nga yaakaar ne boo paree waa ji day jàpp dem jàkk mu ne kenn du diw teek yow ndeysaan yaa ngi sonn nag di ko neexal di wax ba pare rek mu yuux nga xam ne summun bukkumun umyun loolu moom bu fa doomu aadama yeggee rek garaaw na inna charra dawaabi inda allah waaw ñi gën a bon ci daaba yi yàlla bind mooy mbindeef yi nga xam ne amuñu xel ndeysaan da nga leen di xool nga defe ne am nañu xel fekk amuñu xel fal ahkam wa tartib wa tanzim awalan wa tafsil wa tawdih mbokk yi saar yi dañoo ñëw di jàngale ay atte ak ni ko yàlla organisé dafa am ñaari mbir ndeysaan ci alxuraan da ngeen di jàng ci aaya yuy ñëw sunu borom subhaanahu wa taala jàngale ibaada sunu borom mu ne tuub leen dellu ci yàlla istaghfiru la jëkk a jéglu istaghfiru rabbakum summa summa tuubu ilayhi borom xam-xam yi ñu ne ñaari aaya yooyu lan moo tax yàlla waxul tuub leen ba pare wax astaghfirullah waaye dafa ne wax leen astaghfirullah doog a tuub lu tax loolu lu tax yàlla njëkki astaghfirullah parce que doomu aadama su gëmee ne def na bàkkaar ci lay wax astaghfirullah su waxee astaghfirullah moo ngi jéem a tuub moo tax astaghfirullah koo dégg mu koy wax yàlla ubbil na ko yoon pour mu tuub kii wax astaghfirullah moom dafa sentir ne man def naa bàkkaar def naa lu ma warta def wala wax naa lu ma warta wax mu mu jural ko muy wax astaghfirullah astaghfirullah du fa yem sax wa atuubu ilayhi mu ne istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi kon mbokk jullit yi lii première introduction la ci saar bi ñu ñaan sunu borom jalla jalaaluhu azza kamaaluhu yal na yàlla def ci ñun dégg ak topp incha allah samedi bii di ñëw nag introduction yi des na waaye samedi bii di ñëw dañuy dugg direct rek ci saar bi bu soobee yàlla asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su fekkee am na ay laaj